alhamdulillahi fi sirin wal ilaanin wal abdulillahi ma lillahi min saani falhamdulillah maani la haun wala alifun wala abdu haun wa hamdun thumma la maani bizalika aljamu qad sara alkamalu lahu farqan wa jam'an wa jamu aljamci fi aanin salla alayhi ilahu alarsi mujtamiat fihi alxaqaiqi min aanin ila aanin mbokku julit yu tedd yi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 di ko ñaan lu ñuy jaamu mu néew mu bëri na ñu boole nangul ca matam ga ak mbaaxam nga na mu toll te bañ ñu ko nangulee ci suñu mata di géeg manqué géeg mën a tooñ gi ñu del si waat yéen ca kartanal yàlla ci seen émission bu ñuy tuddee albayaan tey nag ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci lu ñuy tuddee ma makaarimal axlaaqi mooy tedd ngay jikko yi mu mal ni olof day faral di léebu mëni nit ku nekk lu mu ëppalee moromam buy sangu ko summi te muy jikko ju rafet nit ku nekk lu mu ëppalee moromam buy sangu ko summi te muy jikko ju rafet gis nga benn borom xam-xam day wax ma ni lépp lu la yàlla mën a jox muy teraanga àdduna te jikko ju rafet bokkoo sa yaw yàlla joxul la dara mais teraanga àdduna yu bët mën a tege yàlla xañ la ko tam sédd la jikko ju rafet yow sédd na la gën saa rafetuk wërsëg kon su ko defee nu nit di sonnee ci ñaan dundu di ñaan kër oto doom jabar ay projet mu ci sonn di ci rey boppam noonu la war a sonnee ci yàlla rafetalal ko jikkoom ji ndax jikko muy nit te jamono ji toll nañ ci foo xam ne penc mi jikko yëpp a yàqu xam nga ki nga xam ne yaruwut mën mënta yare ki yaruwut mënta yare ñu baal ma ci kàddu yi parents yu bëri pour ñu yar seen doom ñoom ci seen jëmi bopp est-ce que yaru na ñoom déet mais nit ki boo yaroo da nga mën a yare waaye boo yaruwul doo mën a yare yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag daan na wax ma ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla yar na ma waaye ma nangoo yaru yàlla yar na ma rafetal nu mu ko yaree noonu lañ koy firi mais dëgg dëgg dëgg mbir mi mooy yàlla yar na ma ma nangoo yaru ndax fii amul kenn ku fi sa kilifa yaru la kenn ku nekk sa kilifa def na ci yow ay melo ak ay jikko ak ay éducation mais ndax yow nangu nga accepté loolu kilifa bi def def ci yowam dit kon su ko defee yenente bi yàlla yar na ko mu nangoo yaru waaye yenente bi bokk na ci kàddoom daan na wax më ni inna allaha taala jamilun yuhibul jamal wa yuhibul maali al axlaq wa yakrahu safasifaha yàlla de buur la boo xam ne ku taaru la te ku bëggulu taaru la waaye bëgg na jikko yu kawe yi moom yàlla subhanahu wa taala waaye bañ na jikko yu suufe kon nit ku nekk war nga mën a incarner jikko yu kawe waaye daw jikko yu suufe yi parce que jikko kawe jikkoy gor la waaye jikko yu suufe jikkoy jaam la te kenn ku nekk war ngaa góorgóorlu ba sa dund gi à vie nga doon gor gu sell doon gor gu bokk na ca moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam wax ma ni inna allah taala jawaadun yuhibul jawaad wa yuhibul maali al axlaq wa yakrahu safa sifa buur yàlla subhanahu wa dafa doon ku tabe bëgg ku tabe waaye bëgg jikkoy kawe waaye bañ jikkoy suufe kon yow jullit bi su fekkee ne da nay bàyyil xel ne yoragoo ji koy yàlla yoragoo ji koy sang kon foog nga xeex loolu mu dañ ci yow xaatimu taa yi dañ ko doon tagg moom mu doon nit ku tabe doon nit ku yéeme tabeem foo ko natt weesu na ko mais tabuk yenent yàlla muhammad bu mu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam dafa nëbbu tabuk xaatimu taa ku tabe la woon koo xam ne képp ku am aajo xelam fu muy jëm ci xaatimu taa un jour dafa maye maye maye ba mu amoon yëpp ci teraanga jeex. mu war fasam ak mool bi ak nga ak ngabar gi mooy li nekk ci teg euh, ci ci kaw fas bi bëgg génn dëkk bi parce que nee na jomb na nit fekk ko fi di ko laaj dara te amu ko moom rus na lool mu génn dëkk bi pour dem am kum tasel kooku ne ko sëriñ bi man de ci biir dëkk bi laa jëm am na waaju may laajte ku tabee la wax ko ay tag yu rafet nekku daal ci moom laa bëgg a yëgg gaaral ko sama soxla xatimu taa i ne ko kook de mooy man mii waa ji gaaral ko soxlaam xaatimu taa i ne ko dara ne ko fi de lii fi ne muy fas bi ak li ci nekk ci or ak ay dërëm ak mool bi ak jaam bi mu ne ko jëlal fas bi waa ji ne xaatimu taa i dafa dof xana teraanga ju tool nii mu ne ma jël ko kii dafa yaakaar dama yaakaar dafa juum waaye naa jël rek dem ba dana ma owaat ram dit mu jël ko topp yoon bi di dem dox ab diir ndeysaan dégg woote mu ne waaw nii la mën a demee dafa juum da koy nangu nekkete xaatimu taa yi bu mayee waa ji fas bi jaamu xaatimu taa yi mi ngi dàqanteeg moolu fas bi pour mu bañ a topp waa ji ci may bi waa ji bu mu geesoo xaatimu taa yi ne ko gis nga fas boobu ak mool bi ak jaam bi yëpp boole waale naa ko ci may bi kii est am na ku ko gën a tabe est que am na ku ko gën a tabe mais yeneen ti yàlla Muhammad bu mu ñëwee dafa muur tabu ko kenn du yenent yàlla Muhammad mbooleem kuy ndaanaan rek moom mooy ndaanaanu ndaanaan yi su ko defee kon boo xoolee yëg ne yow ci ñu ci ñu ci ñu nay nga bokk bàyyil xel ne jikkoy sangu yoro goo ko te moo ne tabe garab la ca aljana nay garab la ca safara koo gis mu tabe rek bàyyil xel ne garab googu nekk ci aljana da koy jàppati di ko ñoddi ba dugal ko biir aljana waaye koo gis mu nay bàyyil xel ne garab ga ca safara da koy jàpp di ko ñoddi ba jugal ko biir safara moo tax nay baaxut kenn ku nekk li nga am muy wërsëg ki ci cëram nekk fexeel boobu ko ko xañ jox ko ko bu ca topp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla subhanahu wa taala ne ko allahuma kama xasanta xalqi faxsana xuluqi yow yàlla ni nga rafetale sama mbind mi ngel la maa ngi lay ñaan nga rafetale noon sama jikko bi yenent bi ñu ngi nettali ci siira ku ko dàq amut xam nga taaru yenent yàlla yuusufa dañ koy waxtaanee yenent yàlla yuusufa ñun ñëpp dégg nañ histoire wi ba ci invitation boobu Zalixa defaloon ko mu fekk jigéen ñi toog di xolli waaye jigéen ñi dañoo xool yusufa bay jaawale seen baaraam yi ak liñ war a xool bay dagg seen bopp ngir taaru yusufa bi jaaxal gim leen jaaxaloon waaye gi nga yënt yàlla muhammad ci leeru ndoxi bëñam ci lañ bind taaru yusufa bi kon moom taaru yënt yàlla muhammad nan la war a mel kenn xamu taar ba nu mu toll ak nu mu mel ci njoolaay ba ci leeraay ba macha allahu rabbi daan na ñaan yow yàlla ni nga rafetale sama mbind mii ba ku ma gis koolaat ma fexe koo rafetale sama jikko ji ba ma yor jikkoy sang su ko defee daan na ñaan moom sang bi ba tayit allahuma ahdini li ahsani al axlaaqi laa yahdi li ahsaniha ila ant wasrif anni sayyi'aha laa yasrif anni sayyi'aha ila ant yow yàlla mi nga xam ne yaay jubal nit ci jikko yu baax yi maa ngi lay ñaan nga jubal ma ci jikko yu baax yi waaye nga soppar mi soppar ñi samay mbir ci jikko yu bon yi kon nga jàngatee fa ne mbokk yi jikko ju baax dañ koy ñaan dañ ciy sonn dañ ciy corriger sa bopp da nga ciy def yitte waaw da nga ciy def yitte ni ngay defee yitte sa projet yi benn bu ci nekk nga nga réaliser ko noonu ngay defee yitte sa jikko yu ñaaw yi nga nga nga dégager ko ci sa dund fexe incarné ji koy sànq kon su ko defee fa tabarakallahu moom yonent bi daan na muslu ba tey ci jikko yu ñaaw yi mooy jikko yu ñaaw yi su ko defee jikko daal mooy nit mbokk yi yenent bi daan na wax ba tey ma ni ku gën a mat ngëm yàlla ci jullit ñi mooy ku gën a rafet jikko ci ñoom ku gën a mat ngëm yàlla ci jullit ñi mooy ku gën a rafet jikko ci ñoom nee na jikko ju rafet bëri na fu muy yëbbu nit foo xam ne woor du ko fa yëbbu aj maaka du ko fa yëbbu natt asaka du ko fa yëbbu ci jikko ju rafet rek bëri waa na koo xam ne farataalut sax ndeysaan ndigle yàlla ji waaye jikkoom rafet na waa jikko ji bu rafetee rek li koy dëggal rek mooy fexeel ba tënku ci ndigal yi des fois da nga gis nit koo xamante ni du julli du or mu ne ah yàlla xol lay fay mais xol boob la xéeneen est-ce que communiqué naag boromam ba tënku nangoo jëf li yàlla subhanahu wa taala bëgg ci moom kon foofu it sew-sew la boo xamante ni nit a ngi koy wax mais xamu ko su ko defee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mandarga la ci bëgg yàlla mandarga la ci bëgg yenent yàlla muhammad nga am jikko yu rafet képp koo xam ne yaa ngi woote woon bëgg nga yàlla bëgg nga yenent bi te sa jikko rafetut yow sa mbëggeel googu ay fen la su ko defee abdullahi abdurahman bun xaaris radiallahu anhu dafa nettali nee na dañoo toog ak yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenent bi ñaan ndox dugal ci ay loxoom mal ni kuy jàpp bu mu noppee ci jëf jooju ñu nit ñu def comme nu yenent bi def yenent bi laaj ñu nañu lu leen jëf loo jëf jii ngeen jëf ñu ne ko xanaa bëgg yàlla ak yenentum bi ne leen bi ngeen bëggee yàlla ak yenentum bëgg leen fexe leen ba ba di wax dee leen wax dëgg bu leen fen benn lu doy waar a ngi noonu jamono jii ñu toll aka nit ñi mën a fen te yenent bi buñ ko laajee jullit ndax dana sàcc mu ne waaw bu ko ko yàlla nattoo jullit bi dana njaalu mu ne ah kay waaw waaw jullit dana naan sàngara mu ne ah kay xeetu banditisme yu ñu wax rek mu ne jullit dana ko def buñ ne ndax jullit dana fen yenent bi ne ne jullit du fen gis nga bàkkaar yëpp buñ dajee ñoom assemble di waxtaan maam Cheikh Tidiane si almaktum nee na bu fen juuxee ci seen biir rek bàkkaar yëpp dañuy daw laqatu ndax danger gi fen mais tey penc mi ñu nekk jullit ñi ñooy fena ah. neexu wax nag ñu baal ma ci kaddu gi te at bu jot benn bàkkaaru fen la yàlla di baale waa mbokk yi at ba at la yàlla di baale benn bàkkaaru fen yow sa journée bi nga fen ci lu ëpp téeméeri fen yow foo jëm foo jëm laa xamut foo jëm yenent bi ne leen bi ngeen bëggee yàlla ak yenentum bëgg leen fexe leen ba bu ngeen di waxtaan waxtaan boobu mu neex ba ngeen fen xam nga am na ci ñoo xamante ne boo leen waxee ne <laughs> eh, yaa mën a togg rek mu ne tànk laa ko yëngalee am na ñu mel noonu ndeysaan bu ca topp ma ni fexe leen ba bu ngeen kóllaranteeg nit bu mu fekkee ko mukk ci seen ci seen côté fexe leen ba bu ngeen kóllaranteeg nit bu mu fekkee ko ci seen côté xam nga euh, jaaduwut mbokk yi ñaari goor toog ñaari góoru yàlla toog kenn ku nekk fas ngeen génn am ku bosam fekkee ko est-ce que loolu jaadu na kon bu ngeen doonee ñaari góor faslante kóllëre fexe leen ba kóllëre googu bu mu yàqu ci seen loxo kenn ku nekk ndax kóllëre googu yowmal qiyaam yàlla da koy taxawal di leen ko laaj inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa asfaxna minha wa amalaha al insan innahu kana zaluman jahula kóllëre dafa doon loo xam ne keroog bu yàlla noppee ci moom da ko gaaral malaayika yi ñu joxe ngant mu gaaral ko jinne yi ñu joxe ngant mu gaaral ko e, jamaadaat yi ñu joxe ngant waaye doomu aadama bi nga xam ne moom dafa yàgg dëgër fit mën na yàlla jox ma ko man danaa ci def lu ci war waaye lu ca yàlla mujjee lu mu ca teg innahu kaana zaluman jahula amaana muy kóllëre yàlla ba mu ca noppee da ko programme jox ko amiin muy jibril jibril am na ñetti tëni yoo xamante ne benn bu ci nekk am na service bu mu ca war a dox waaye keroog yàlla daf ne nag tëni bi ma bëgg nga sol nag yëbbul ma amaana bi mooy ruuhul amin laa bëgg nga sol tey jibril sol ruuxul amin jël amaana bi ñëw ci baladul amin te mooy màkkatal mu karama fekk fa muhammadul amin mi nga xam ne mooy doomi amina mu jébbal ko amaana bi waaye ana mu tey kenn ku nekk kóllëre kóllëre yaa ngi koy yàq yaa ngi koy sàggane te yowmal xiyaam yàlla da koy taxaw li ko laaj kon yonent bi ne leen ba ngeen bëggee yàlla bëgg leen dee leen matal kóllëre ñetteel bi mooy kenn ku nekk sa dëkkandoor fexeel ba bu lor jugee ko ci yow di dem ci moom lu doy waar surtout ak dëkkandoor dafa danger da nga togg loo xam ne xeet gaa ngi xeeñ sa dëkkandoor mënu saa mos loolu àq la xam nga danga nga tuur ci sa buntu kër ndox moo xam ne sa dëkkandoor buy jàll ndeysaan day jéggeeg day maytu loolu àq la danga taal dara muy saxaar ndeysaan di leen di leen indil jafe-jafe loolu àq la da nga dëkk ak nit kër di yuux wala teg musique am si këram ku fa bëgg feebar wala bëgg dallu loolu àq la àq yu sew sew yooyu mbokk yi yenent bi nee na ngeen fexe ba mucc ci bu ngeen bëggee yàlla yenentum bëgg leen kon yii bokk na ci jikkoy sang yenent bi daan na wax mënee bokk na ci jikkoy sang mooy nga ragal yàlla foo mënti nekk ragal yàlla ci lu nëbbu ragal yàlla ci lu feeñ waaye man ni sama classe yor seen kurus sol seen dara ak seen mbaxana wéete euh, teew ci kanamu nit ñi rek wane ak ragal yàlla waaye boo wéetee ci néeg bi moom mën ngaa tukkal àdduna kooku musiba naaru lay la comme ni ko benn benn waaju xoromu waxee nee na des fois nga gis kilifa gu naan jigéen ñi muur leen seen bopp yi waaye bu ñu duggee ba fàddu bëtu nit ñi rek ngeen baal ma ci kàddu dañ naan ko muril sa nangam bi waaye kuy muurloo nit ñi bopp wéet nit ki naan ko muril sa nangam bi talewu la xam nga fa la danger yam fa la danger yam kon su ko defee yenente bi nee na bokk na ci jikkoy sang nga fexe ba ragal yàlla ci lu nëbb ragal yàlla ci lu feeñ bokk na ca nga jikkoo nit ñi jikko ju nga xam ne koo jëflanteel du la jéppi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doonoon nit koo xamante ne ku ko ñam rek danga ko bëgg a ñamaat ku ko mos da ko bëgg a mosaat ndax jikko yu nekkoon ci moom yàlla def ne ko law kunta euh, fazzan xalizan qalbi lan faddu min xawlik soo nekkoo nit koo xam ne da ngay mer di énervé di wax lu la neex ñi la wër ñëpp danañ daw bàyyi la fi waaye da nga doon nit koo xamante ne ku disponible nga doon nit koo xam ne ku am yar nga ku am xorma nga ku wàccee sa bopp nga moom yonent yàlla muhammad boo ko fekkaan ci biir saxaaba yi doo xàmmee ci ñoom kan mooy ci yénant bi parce que comme nuñ koy defee tey nuñ ko miinee xamee ko noon tey sëriñ bi bu ñëwee toog ci jotaay boo ñëwee doo laajte sëriñ que lu tax fu a baax fu gën a kawe fu gën a nooy foofu la ñuy sëñ bi yow boo ñëwee fekk nit ñi toogaay bi da ngay xam ne kii yee sëñ parce que fu ñu ko teg a tax yénant bi nag melutoon noonu yénant bi boo ñëwee da nga doo xàmmee yénant bi ak saxaaba yi ndax fu gaa yi toog lay toog da laajte kan mooy Muhammad ci yen ndax wàccee gi mu wàccee woon boppam yeneen bi boo boo dajee waan nag moom ci mbedd moom mooy allière xajal la nga jàll boo ko joxaan loxo du rocc lu dul da ngaa rocc sa loxo ku baaxoon day san su ko defee jikko yooyu lañuy ñu soxla ndikki jikko ko yeneen bi nee na ku gën si nit ñi tey mooy borom jikko yu kaw yi mooy borom jikko yu sell mooy borom jikko yu rafet yi waaw su ko defee kon ñun buñ jàngataatee yii ma lim ci suñu bopp ñun est-ce que bokk nañ kon ci ñu gën déedéet ñun ci ñu tardé lañ bokk ci ñu ndaare ci ñu dellu ginnaaw parce que buñ jàppee ne wax dëgg yàlla xëy ndékki añ reer ut dund tabax kër ami doom yor oto di yéeg di wàcc yuñ jàppee ne loolu mooy dund gi loolu du dund lool mala yi sax boo demee ci àll bi fekk leen fa boo demee ci àll bi sax fekk mala yi ñu ngi dundee comme noonu mais dafa am jikko yoo xamante ne yàlla foo koo bëgg ci sa dund gi bëgg ko ci pénc mi ngeen war ko incarné waat bu baax te mooy jikkoy sang mooy ñu tooñ la ba ñëpp xam ne dañ laa tooñ nga jekku bu ñëpp xam ne jekku nga waa ji waaye nga baal ko ba ñëpp xam ne jégal nga ko loolu mooy jikkoy sang nekkul ne ko la wokk nga xuri ko ku ne la yaama ne nga ne ko maane la am na ci nit ñoo xam ne ñoom pour ñu avancer wala ñu egg fuñ jëm foog ñu leen di tuumal foog ñu leen wax lu ñaaw foog ñu leen di critiquer waa léegi nag bu la yàlla defee nga doon nit ko mel noonu ñëpp di wax ci yow bul tontu bul lijjanti bul faale doxal rek jëm ci fi nga war a jëm waaye boo fa nekkee ku ne la benn nga ne fukk ku wokk nga xuri ko ku la dóor nga fayu da ngay tardeel sa bopp parce que ñoom demuñ yow demoo loolu bokkul ci ji koy sang euh, Abdourah Abdullahi bun Amro dafa nettali bun As nee na dañoo toog ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man xayru naas kan moo gën ci ni ñu yow yonent bi yonent bi ne leen zu xalbin maxmumin wa lisaani sadiqin ñu ne ko yaa nabiyallah qad arafna lisaanu sadiq fa ma qalban maxmum qaala sallallahu alayhi wa sallam attaqiyu naqiyu lazi la isma fihi wala baqe wala xasad yonent bi ne leen xalbul maxmuum moom soo ko bëggee xam daal dëgg mooy ki ragal yàlla ci lu nëbb ak ci lu feeñ mooy ku xolam bi set wecc ci xeetu xeetu mbuusóor yi mooy ki nga xamante ni du am mbañeel ci xolam waaye du am kañaan ci xolam xam nga li gën a danger mbokk yi mooy xool nit rek bañ ko fa la danger yam parce que ki ngay bañ bàyyil xel ne njabootu yàlla la yow it njabootu yàlla nga yow boo ko bañee rek nekkul ne moom nga bañ mais yàlla nga bañ parce que war nga mën a jomb sax melentaan romb la nga bañ ko waxuma laa nag nit ak nu ko yàlla fonke ak fu ko yàlla teg nga xool sa mbokku nit rek bañ ko jéppi ko yéene ko safaan kooku ci dof la bokk te yéene néeg la borom borom a cay fanan moo tax yéene yi nay rafet rek yéene yi nay rafet dama koy nettali sama benn jigéen ma ni ma dafa am waaju muy waxtaanal ma ne ko dama bëgg soxna sama jigéen bi ne ko kaay ma présenté la sama tante ma may la ko ah mu présenté ko tante ji ñu waxtaan tuuti mais sotti wut ba mu ñàkkee sotti ñu doxal tuuti rek waa ji waxtaanaat ak sama jigéen bi ne ko moo ne de bu ma lay wax wàllu soxna yow yaa ma taxoon a jóg ndax tooy nga ma sa jikko rafet na macha allah ndaw si ne ko man de sama tante laa amoon yaakaar ci jikkoom ju sell rek moo tax ma yabaloon la ci moom waaye man tomb bu ma fay jàngatee man man personnellement mooy ndaw si yéene gu muy yéene tàntam lu baax moo tax yàlla delloo dellooxaat ko lu baax lool moo tax ñu naan yéene néeg la borom a cay fanaan kon su ko defee kenn ku nekk rek na nga góorgóorluwaat fexe jikko woo jikkoy sang yeneen bi nee na koo xamante ne jaamu yàllaam yépp mat na li yàlla bëgg mu ngi ca tënk boppam lu mu tere bàyyi na ko te mi ngi lor mbindeef yi yeneen bi neen koog du am dara keroog yomal xiyam ci kanamu yàlla kon nag nañu góor góorlu bu baax fa tabaarakallaahu lu ñuy ubbee sànq moom lay waxaat benn borom xam-xam dafa mu ne fa ida rujita xaliqatan mahmudatan faqad istafaaka muqasimul arzaq fa naasu hada xathuhu ilmun wa dha maalun wa dhaka makarimul axlaq ne ne kii wërsëgal muy yàlla subhanahu wa taala bu la wërsëgalee jikko ju rafet na la gën saa rafetug wërsëg ndax am na ci ñoo xam ne seen cër xam-xam la am na ci ñoo xam ne seen cër alal la waaye am na ci ñoo xam ne seen cër jikko ju rafet la kon su la yalla yàlla mayee jikko ju rafet fa tabarakallahu deselatu la dara yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn arab bu ñëw ci moom pour wan la jikko ju rafet rek ak te doo leen dépassé arab bu ñëw ci moom di ko boole ne ko dafa am benn sàcc bu ma jàpp ci sama tool arab bi foog ne yenent bi dana gëtëngal sàpp sàcc bi yenent bi tontoon ne ko halla ataamtahu in kaana jaaixan wa halla allamtahu in kaana la lu teewoon nga jox ko mu lekk ba mu suur fekkee ne dafa xiif moo ko tax dugg ci sa biir tool lu teewoon nga xamal ko ne ko tool bii kat sama tool la du pour sàcc nga xamal ko loolu waaye bu ko gëtëngal bu ko xas nangam ak nangam gis nga jikkooy sang yooyu yenent bi doon incarné bëgg nit ñi jikko woo ko dafa am solo am na jour waa ju ñëw moom poñe yenent yàlla Muhammad poñe ko ba bëtu yenent bi xullee ko saa bay jug bëgg a dal ci kaw waaj yenent bi ne déedéet teey leen da ngeen ni laaj lu tax mu jëf-jëf ji ñu laaj waa ji waa ji ne yenent bi daf maa yoreel bor gars yi bëgg a dal ci eh, eh, saxaaba yi bëgg dal ci kaw waa ji yenent bi ne du nii da ngeen ni wax waa ji ne nii kenn du ko fayee koo bor ngeen wax seen waa ji mu bi ne ko boo yoree bor del fay xoolal xoolal xoolal jikko ju sell ji xoolal jikko ju rafet ji xoolal jikko ji yiw ji bu doon sama classe gi la maa ngi xoogale ko ne taalibe yi rey leen ko mu dee duma leen ko xam nga mais xoolal yar bu rafet boobu mu yar saxaaba yi kon su ko defee fa tabarakallahu jikko yooyu lañ soxla ci julit bi mais pas ay jikko defante ay jikko waxante yu ñaaw ay jikko xastante ay jikko uñiwante ay sutura dafa am fukki jikko yoo xamante ne Cheikh Seydil Haaji Malick radiyallahu anhu daf ci addu ne min kulli wasfin hamidin haada afala taf dilin rajaul baraya yawma mustahim muy fukki jikko yoo xam ne kenn ku ci nekk boo yégee ne mi ngi ci yow rek bokk nga ci ñu am jikko yu rafet bu ca jiitu mooy lan mooy amaana muy kóllëre nga doon nit koo xamante ne ku am kóllëre nga koo jëf koo fasantel kóllëre doo woor première deuxièmement nga doon nit koo xam ne as sabru mooy ku mën a muñ nga ku mën a yenu ay lor nga lor yu la yàlla teg ak lor yu la mbindeef fii teg yëpp benn bu ci nekk yaa ngi koy muñ muñ gu dul jàmbatu nag xam nga muñ moom bu ca jàmbat bokkee rek doonatul muñ muñ moom bu ca jàmbat bokkee rek doonatul muñ kon nga doon nit koo xamante ne ku mën a muñ nga ñetteel mooy nga doon nit ko ndànk nit koo xamante ne ko teey nga ko dal nga paa nga doon nit ku ëppal wala ku am fitna wala kuy xat-xati ñeenteel bi mooy al istiqaama mooy nga doon nit koo xamante ne ku jub nga bëgguloo ay jàdd jàdd wala njubadi nit ku jub ba pare tegu ci jub juróomeel ba mooy alxaya mooy nga am kersa nit koo xamante ne rus nga yenn yi jomb nga yenn yi nga doon nit ku am kersa juróom-benneel bi mooy sit ko mooy nga dëggu mooy nga dëggu waxtu wu nekk tey wax dëgg encore bëri waa na nag ñu nekk ci penc mi sama classe gi lu ñu wax dëgg la waaye ndax ñoom dëgg na ñoom déet tey li ma frisé mi yëpp buñ xoolee njàngalu yàlla njàngale yàlla la njàngale yënanti bil mais est ce que man mi koy wax dëggu naa wala dëgguwuma kon wax dëgg ak dëggu du benn nga doon nit ku dëggu juróom-ñaareel mooy at tawaada mooy nga suufeel sa bopp wàccee sa bopp xam ne doo dara nit kase nga sosuwoo lu dul ci ban sosuwoo lu dul ci sobe te boo dee ci suuf si lañ lay delluwaat te du yàgg dara sa yaram bi ndabaat sax yee koy mujje kon lan nga yow bay fëgg sa dënn bay bàkku bay kaweel sa bopp kon bokk na ci jikko yu ragal yàlla yi dëgg dëgg dëgg mooy nga suufeel sa bopp inna tawaadao min xisali mutaqiyu wa bihi taqiyu ilal maali yartaqi mbooleem koo gis muy xoggale ko rek di rëy rëylu rek bàyyil xel ne kooku amul ragal yàlla koo gis mu suufeel boppam rek bàyyil xel ne kooku ku am ragal yàlla te en général mag ñi dañuy léebu ñu ne bërigo bu fees du yëngu waaye boo gis mu yëngu di tànqal nit ñi rek dara nekko ci sama classe gay mbel mbeli rek ndax dara nekko ci ñoom waaye ku yor dara rek da nga degg dégg ndeysaan kon bokk na ci jikkoy sang nga suufeel sa bopp wàccee sa bopp juróom-ñetteel bi mooy alaafu nga doon koo xam ne da ngay jéggale waaye di jéllale nga doon nit koo xamante ne buñ la tooñee ñëpp xam ne yow mi dañ laa tooñ mais nga doxal jikkoy sang nga baale parce que des fois nga def sa borom naka sudul noonu tam baal la bàyyi la fi ba léegi kon bu la ni defee naka sudul noonu xoolal ni la yàlla def nga def ko ko xom ñu ngi may kenn ku nekk ni la yàlla fexe koo def sa morom ndax yaa ngi tooñ yàlla 24 heures sur 24 li joxo ko ko ba pare yow ki tooñ la nga ne da ngay réagir pour lan kon foog ngay jëllale di jéggale juróom-ñeenteel bi mooy asukru mooy nga doon nit koo xam ne kuy sant yàlla nga ci xéwal yu nëbb yi ak xéwal yu feeñ yi ci yu neex yi ak ci yu naqadi waaye su fekkente ne bu neexee poos bi dis rek ci ngay sant bu naqadee nga commencé jàmbat di mbel mbeli rek kooku taxul ñuy wax jaamu yàlla taxul ñuy wax jikko ju baax taxul wax jikko ju sell kon nit ki foog nga yemale ñaari yii mooy poos bu fees ak poos bu vide nga war a nga war a mën a sant yàlla ndax jamono ju nekk yàlla ngi lay teral di la xéewalal xam nga xëy rek ndeysaan yeewu dem si toilette bi sangu xam nga defar sa ndékki dem doxi say service loolu xéewal est-ce gën na ko rëy am na ci koo xam ne fu mu tëdd mënu faa jóg dañ koy yëkkati dañ koy sang dañ koy dañ koy xol lekk bi waaye voilà léegi yooyu yëpp bu la ca yàlla musalee jox la teraanga bu toll noonu nga mën a bopp lu ne est-ce que loolu du cër ko sant ci yàlla ndax am na ku ko bëgg amu ko kon juróom-ñeenteel mooy ngay sant yàlla ci lu nëbbu ak ci lu bi nga xamante ne nag fa tabaarakallaa mooy fukkeeli jikko yi nga xam ne mooy jikkoy sang yi mooy nga doon koo xam ne da ngay yërëm nit ñi te te loolu la yàlla yabale yenent bi ci ñun wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla ne ko yónniwu ma la yow yenent bi lu dul nga doon jëmmi yërmande ci xeet wi moom la Cheikh Tidiane di wax aynu rahmati rabbaniyati moom mooy jëmmi yërmandey borom bi moom yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toog na ba mu yàgg moom yeneen tamit mu ne anna rahmatul mihdat man may kaddoog yërmande bu leen yàlla subhanahu wa taala yónni kon su ko defee nit ki foog nga doon koo xam ne kuy yërëmaate ngay doon kon yii mooy jikkoy sang yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp defal ñu sutura defal ñu najaax bi barakati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla musal ñu ci jikko yu suufe yi waaye baaxee ñu ci jikko yi kaw yi bi jaay sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam di wax rek ne in uridu ila al islah ma stata'tu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi al unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu